lépp jaax na yoon waaye seetlu gi benn la mooy askan wi dañoo wan gannaaw bañ gàcce yi rawatina ndaw ñi loolee li ko sabab bëri na bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi. assemblée bi gisuñu seen bopp. ay assemblée boo xam ne yaa ngi fi dégg ay trafic faux billets trafic de visa nit ñi di xuloo di xeex. gisuñu ñu contrôler l'action gouvernementale comme ni ñu ko waxee yàlla doo sawar ci. ko jàppale beneen aspect bi mooy contexte bi ñu organisé législative moo nañ ko décalé tuuti ne serait-ce que bu mois de novembre parce que xaar ba muy taw ngay organiser du xalaat ñii ñu ngi def examen ñii ñu ci ay inondation donc yooyu dafay indi vraiment nit ñi ay ay perturbation ak ah, surtout que mu campagne démarré jour tabaski si loolee moom Assane Samb di si yokk ni sénégalais yi xamuñu bu baax lan mooy taxawaayu député yooyee liste la euh, day difficile si ñoom xamuñu kan la ñuy voteel te ñooñu ñuy voteel liste boobu te yooyu non seulement ñu si bëri duñ leen miin mais dañ naan bu ñu demee assemblée luñ fa liggéey dara ñu fa njariñ assemblée bi. si loolee moom directeur publication réew mi quotidien mu ngi xam ne ni jot na rek ngir député yooyee gën a rafetal seenu taxawaay. nan la ñuy changer les mission de l' assemblée ak nan lañ koy expliquer aux populations. ak yan la correctif lañ ci war a apporter. que population gën xam également les missions du loolu amul ci débat presque débat campagne. or loolu erreur la si état major politique yi erreur la également. ci citoyen yi woon nañ loolu ndaw yi wan ginnaaw bañ gàcce yi loolee li ko sabab bokk na si ñàkk wóolu gi nga xam ni ndaw yi dañ ko am jëmale ko si way politique yi.